الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم وسوف ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ انظر إلينا بها المحضر تعطي بنظرة تأتي لنا بظهر هذا المدير الحرات رسالة إلى حاج عبد الله مدينة كولخ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 أهلهم الله بأن كانوا للمصطفى ودينه ظاهرا أما بعد فإلى الولد الحبيب والسيد الأديب الأريب الحاج عبد الله الثاني بن إبراهيم الأول بن الحاج عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يليه الإعلام بأني وقفت على رسالتك الغراء وإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أسأله تعالى أن يزيدك بسطة في العلم والجسم وإدراكا في العلم والفهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وإني يا ولدي وقرة عيني أوصيك وقرة عيني أوصيك وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والجهر وتصحيح العقد مع الله ألا تقصد بحركاتك إلا وجهه تعالى لا سيما عند قصدك بيته المعظم فلا يكن لك غرض إلا امتثال أمره تعالى بأداء فريضة الحج له اقتداء بالرسل وأخرج قلبك min jamii al-akwaani laa tusaakin wa laa tu'aalif illaa xadamata sayyidika wa mawlaaka wa xaaliqika والرقيب والمهيمن عليك في سائر تطوراتك مع شهود من من منته في ذلك فعليك بتلاوة كتابه حق تلاوته وذكر الله باللسان والقلب وكثرة الصلاة على النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق وكثرة الدعاء لنفسك ولوالديك وللمسلمين والمسافر دعاؤه مستجاب ويستجاب الدعاء عند رؤية البيت أولا وعند الحجر الأسود والملتزم وعند بيت وعند باب البيت والركن اليماني وتحت ميزاب الرحمة وعند مقام إبراهيم وعند زمزم وعند الصفا والمروة وعند السعي بينهما وعند مسجد الخيف وبمنى وبمنى وعرفات والمشعر الحرام بالمزدلفة وعند العقبة وبعد الجمرتين فأكثر من الدعاء فإن الله تعالى ما أعطى أنبياءه وأولياءه إلا الدعاء وما فتح لك باب الدعاء إلا وفتح لك باب الإجابة إذ هو الكريم الوهاب الغني المجيد هذا بعد إتقان الفرائض فالكل تبع للفرائض وقد أذنت لك يا ولدي فيما عندي من طريق الشيخ رضي الله عنه walaysa indi akbara min hada wa qad raditu anka ridan taamman wa sallim minni ala alxabibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kullama daxalta alayhi wala tansa walidataka albaarata wa ixwataka wa axawatika wa axawatika wa ixwanaka fillahi alladina kasurat xuququhum alayna bi xusni zannihim wa xidmatihim wa bazlihim alamwala fadu llaha lahum jamian wala tansa jaddaka wa samiyaka fa inna kulla ma naxnu fihi xasanatu min xasanati radi allahu anhu ولا تنس جميع الأشياخ وكل المسلمين ومن له منة علينا رجعك الله سالما وغانما حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والسلام إبراهيم بن حي عبد الله لا تربي باي doomam xalifa alxaaji abdullahi moom la ko bindoon fekk mu ngi dem màkka jàngale yu bëree bëree bëri moo ci nekk moo tax ñi tànn ko pour jàng ko tey gannaaw bum sante yàlla mu nga xam ne mooy borom alam bi lépp mooy rahmaan mooy rahim mooy malik yawmi santaat ko yàlla mi nga xam ne amul doom amul bokkaale ci nguuram amul ndend yàlla teg ci loolu ne nga màggal yàlla gépp ak màggal bokk na ci màggal ko nga dàqal ko yooyu yëpp nga xam ne moom xellut ci moom doomi aadama mooy ñàkk doom gis ne dafa manqué ndax dafa am lu mënut bëgg dooma mënal ko ko dafa am fu mu newut bëgg mu nekk fa am bés mu jugee fa bëgg lii des fi yàlla nag amul soxla ci yooyu le doomi aadama di defee doom moom ñàkk soxla loolu mooy tegtale ak matam moo tax aaya ji mujjee ci tek takbiran santaat yàlla mi nga xam ne moo ñi jubal ci lii te nekku ñoon ci jubee bu taxutoon ak jubak jubal ak yàlla santaat yàlla cant gu bëree bëri julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy tëjëli feeñu waaye tëjëli bu njëkk ki nga xam ne jaam la waaye jaam bi nga xam ne boromam kii dëgg mi yàlla tabaraka wa taala daf ko def muy sang ndax wax na ne ana sayyidu waladi adama wala faxra càng googu yàlla tabaraka wa taala moo ko ko def yàlla ko gënale ci mbooleem yonentu yi gannaaw boo xamee ne alquran xamal nañu ne yonentu yi dañoo gënante tilka rusulu faddalna baadum ala baad yàlla ko def buur moom loo ko nguur gu màgg màgg te moom dundut lu may ak njaam rek ndax fekkee buur yi dañuy atte moom attekat la woon jiite ay xare jiitekat la woon lépp loo xam ne nii buur koy def yonent bi daana ko def ba mu des nguuru waaye nguuruwut yàlla jox na ko doole buur yi àddina te taxut mu masa yëg lu may ne moom jaam rek la ba ko yàlla dimbalee ba ubbiloo ko màkka nga xam ne noonam yi nga xam ne ñoo bokk lépp xem ci màkka ndax ñoo bokk dëkk fa ñi génnee ko fa lor ko lor ñi muy ànd def ko liñ ko def yëpp ba demee ba am doole dugg ci seen biir dafa yeesal doxam ba sikkiñam mu ngay laal tegam bi ngir am kersa ci yàlla mi ko jëlee ci fàttewut mukk bés bi nga xam ne ñàkk na doole bay dox di lakkatu ci ay xunt yàlla may ko doole mu dugg màkk ci pënd boo xam ne ñi ànd ak moom seen pëndi ngawar yi rek def na ba bëccëgi màkk mu mel ni guddi ci la Abu Sufyaan wax Abbas ne ko sa nguuri doomi mbokk mi rëy na de mu ne ko lii du nguur lii nu bu watu la kon nga xam ne maanaam mazhar fi nga xam ne mooy mazahir nguur yi seeni i feeñuwaay seen doole seeni i kàttan seen atte loolu yëpp yàlla moom loo na ko ko waaye oote wut buur jaam rek la oote moo tax ba kenn ci waa màkk yi tiim ko di lox def na ko hawin alayka ma ana bi malikin jarul ngay tiit yëf yi la man duma buur innama ana ibnu imra'atin kaanat ta'kulu al-qadid bi makka doomi doomi jigéen bu daan lekk ay seel fii laa ci makka maanaam comme yow laa nit laa ah, comme yow sa mbokk laa sax pour ñemeel ko boppam moo tax ba waa màkk yi taxawee ñi ko doon tooñ ñi ko doon lor ba mu leen laajee maada tazunnuuna anni faa'ilun bikum lu lu ngeen foog ne moom laa leen di def xaalu xayran yow lu baax rek nga ma def axun karim wabnu axun karim mbokk mu baax nga doomi mbokk mu baax nga loolu bu fekkee ne kuy oote ne baax wala ngay oote ne doomi mbokk nga xam nga ne loolu mooy sa taxawaay dëkkin wi dana gën a yomb ala alihi wa sahabatihi julli ci ñooñam julli ci saxaaba alayhi xam nga ne eh, yàlla mooy ndimbali yonent bi sallallahu alayhi waaye moo tànn ay nit jagleeloon leen boole leen boole leen ci loolu nga xam ne moom def na ko ba pare moo tax mu ne yàlla moo leen jagleeloo ñi nekk eh, ndimbali yonent bi nekk ndimbali eh, diinem gannaaw loolu mu ne mu ngi jëm ci sama doom sama soppe sang ku ku yaru ku xelu alxaaji abdullahi saani nga xam ne mooy ñaareel di doomi ibrahima muy ñett muy muy muy muy muy njëkk doomi alxaaji abdullahi ko mooy alxaaji abdullahi doomam gannaaw bu mu ko nuyoo salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu ne ko maa ngi lay xamal ne taxaw naa ci sa leetar bu rafet bi gis naa leetar bu rafet bi nga ma bind maa ngi sant yàlla mi nga xam ne kenn du buur lu may moom kenn du yàlla lu may moom maa ngi koy ñaan mu dolli la ci xam-xam dolli la ci jëmm dolli la ci dégg ci xam-xam ak ak ak ak ràññee mu ñaanaat rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ba tey loolu mu ngi koy ñaan ci moom bi maanaam yàlla yàlla nga ñi may ci suñuy jabar ak ci suñuy ngirt sedd xol def ñi ñi ay njiit ci way ñeel way gëm mu nekk ko yow sama doom yow sama sedd xol maa ngi lay dénk di dénk sama bopp waaye bu mu dénkaanee ragal yàlla da ngay gis ne waxtu wu nekk boppam lay jiital ci lool maa ngi lay dénk di dénk sama bopp foofu moom mu ngi ci biir dénkaan boobu dañoo xam ne digleel sa jëf ñu topp la yàlla dafa wax Isa ibn ne ko iz nafsaka fa in a taazat fa izi nnaasa wa illa fastaxyi min rabbik waatal sa bopp ba pare bu sa bopp waadoo nga waat nit ñi bu fekkee waadoo sa bopp wala waat nga ko te waaduwut sax yow rusal yàlla mu gis la ngay wax sant nit ñi loo xam ne defuloo ko yàlla nga wax ne lima taquluuna maa laa tafaluuna kabura maqtan inda allahi an taqulu maa laa tafaluun wax ngeen di wax loo xam ne nii du ngeen ko def moo tax ubbi buntu waane it bunt bu diis la maa ngi lay dénk dénk sama bopp ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbbu maqaama yeeg may yeeg feeñ waay yum bëri bëri bëri ñenn rek la yàlla wax ne ñoo gën a tedd fa yàlla inna akramakum indallahi atqaakum ki leen gën a tedd ñi leen gën a tedd fa yàlla mooy ñi leen gën a ragal yàlla waaw borom xam-xam am na ngëneel borom alquran xayrukum man taallama alqurana wa allamahu linnaasi waaye ku leen gën a tedd ñooñ ñëpp waxul ne ñoo gën a tedd wax na ñee gën waaye ku gën a tedd fa yàlla mooy ku gën a ragal yàlla rek moo tax yowmal qiyaamati yàlla dana taxawal jaam yi ne dama fooral suma askan ne mooy ñi gën a ragal yàlla yéen ngeen fooral seen askani bopp naan diw doomi diw doomi diw ak diw ak yax bu rëy bu kii bu tuuti bu nangam tey nag seen askan yooyu yëpp neenal naa ko enal muttaqoon ana ñeem ragaloon yàlla kon loolu mooy askan bi nga xam ne nii mooy askan yi dëgg-dëgg te moom mooy teraangaay dëgg-dëgg ndax mooy teraanga bi nga xam ne nii dafay sax ndax teraangaay àddina bis bési yàlla yi ci bési àddina benn bés rek ni ki junne at la junne at nag kenn yaakaaru dund ci àddina bi bay ne ko na nga ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb na nga wéral sa pas-pas ànd ak yàlla sa jëngatu yi bu ci jublu daara lu may jëm yàlla ji tabaraka wa rawatina nag ba ngay jublu néega bi yàlla bu màgg bi loolu dafay melal waxtu wooy jublu li nga xam ne dëgg-dëgg ko ñi xàmmeewu tim xam nañ ne yàllaa ko moom xam nga ñi xàmmee xam nañ ne sa jëfi jaamu yi ak sa jëfi aada yëpp yàlla ko moom waaye ma ne ñi sax xam nañ ne jëfi jaamu yi yàllaa ko moom kon boo mënta góorgóorlu ba sa yëngatu yi ñeyal yàlla ci sa mbooleem yëngatu yeeg sa mbooleem dal war ngaa bàyyi sa xel ci li nga xam ne nii moom yàlla moo ko moom moomu léewu la ci dara mooy waxtu boo xamee ne yaa ngi jublu jaamu yàlla bul sàgganee bul sàgganee eene gis nga nit mën naa miin lu baax ba bu koy def sax du yëg ne mu koy def waaye loolu mbaaxang ci waaye bu borom sàgganee yëfam yu baax dafay nekk aada loo ko miin miin bul sàgganee eene innamal amalu binniyaati jëf yi eene rek ñoo ko moo tax mu ne rawatina boo jubloo néegam yàlla bu tedd bi bul am benn bëgg-bëgg ci loolu lu may topp ndigali yàlla ci joox farataay aj ñeexal yàlla ngir roy ci yonentu yi ndax xam nga ne yonentu yi ñoom ñëpp aj na néega bi ndax xam nga ne ibrahima oote na aj wa azim fi nnaasi bil hajji yaatuka rijaalan wa ala kulli daamir yaatina min kulli fajjin amiq kon moom xam nga ne aj na téere nee nañ aadama aj na moo tax mu ne ko na nga aj néegam yàlla bi ngir roy ci yonentu yi te buñ waxee loolu roy ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama mooy jubluwaay bi dëgg-dëgg moom mi nga xam ne moom moo aj gannaaw boo xamee ne arab yi ñu ngi doon aj waaye ba mu ñëwee aj dafay aj jàngale aj ne xudu anni manasikakum seeni ponki aj seen jëfi aj jëlee leen ko ci man kon kuy aj dëgg-dëgg yonantu boobu sallallahu alayhi ngay roy ne ko na nga génnee ci sa xol mbooleem kawnu bi bul dëkk kenn bul miinante kenn lu may sa jaami borom bi liggéeykat yàlla yi rekk kii sa sang leetar bi dama koy jàngale fa bari bari waaye keroog dama ko jàng mel ni baat bi maa ngi koy door a gis moom moo xaccaat ci lettre bi laa tusaakin wala tu alif illa xadamata sayidika wa mawla bul bul miinanteeg kenn lu may ñi nga xam ne liggéeykat yi sa borom bi lañ sa sang ki yàlla tabaraka wa taala xam nga ku dem foo xam ne da dem pour jox say farata nit ñi soxla yi xacc nit ñi jëmee foofu dafa bari moo tax bàyyi ne bul ànd ak kenn bul miinante kenn bul dëkkaale kenn lu may ñi nga xam ne xam nga ne ñoom waxtu wu nekk ña ngi ca yooni liggéeyal yàlla rek tabaaraka wa taala ki nga xam ne mooy sa sang te mooy aji bind sa te mooy lay fuglu te moo méngoo sa mbir lépp ci sa mbooleem loolu nag nga def ko ci sa mbooleem tatawuraat yi maanaam ci sa mbooleem xaal yi rek sa mbooleem xaal yi ci def loolu loolu nag ànd ak shuhuudi minnatihi loolu nga boole kook seedu mayam yi moom yàlla tabaraka wa taala xam nga melokaano moo mu tudd melokaano bu rafet rafet la waaye boo ko amee tim bum tax yow nga gis ci sa bopp loolay jàngale defal daggal lépp lu yàlla tabaraka wa jublu ko moom kenn ci yëngatu yeeg ci dal yi bul àndaaleeg lu may koo xam ne ci moom la jëm loolu nag boo defee loolu ba pare na nga ko booleeg nga seedu may yàlla yi tabaraka wa taala mooy nga xam ne yàlla moo def askan la waaye yow loolu mat ci yàlla rek lay jugee du jugee ci jaam jaam dafa manqué mat ci yàlla rek lay jugee moo tax bu waxtu boo gisee mat rek fàttalikool ci kim jugee mu yàlla tabaraka wa taala loolu buntab sant la sant moo lay ubbil buntab ndolal bàyyi ne ko nanga nga taqoo jàng alquran dëgg dëgg jàng nga taqoo jàng alquran dëgg dëgg jàng loolu dafay dafay àndaaleeg li alquran di diglee nga koy def li alquran di tere nga bàyyi ko mun nga jàng alquran fekk sa làmmiñ rek moom mooy jàng alquran téere bu barke la fu fu dara ci alquran ruus barke boobu dana ci feeñ mën ngaa am yool mën ngaa am nangam waaye xam nga ne ki koy jàng fekk mu ngi dégg li téere bi di wax moo ëpp yool ki koy jàng te xamul li téere bi ki ko jàng te xam li téere bi di wax te bu digle mu def bu tere mu bàyyi kooku moo gën a ëpp yool ki nga xam ne mu ngi koy jàng te topput ay ndigalam bàyyiwut ay tereem ki koy jàng fekk mu ngi mel ni mu ngi koy déggee ci yàlla tabaraka wa di teewlu màggaay ak yàlla tabaraka wa di teewlu màggaay ak bi nga xam ne melow boromam la jox ko màggaay gi nga xam ne borom bi mu jugee nam màggee noonu la màggee nga xam ne loolu ëpp na ay xuruf xam nga ne kooku jàngam alquranam mu gën jàngab alquranam ki nga xam ne nii mu ngi koy jàng di ko dégg mel ni moom mooy jàng donte mu ngi topp donte mu ngi terewu donte mu ngi dégg ay maanaam kële nga xam ne mu ngi koy dégg mu mel ni incha allah tabaraka wa taala la jugee ànd ak teewaay ak màggaay ak yàlla gi nga xam ne du tàggoog màggaay ak melom yi kooku jàng alquranam mooy dëgg am njàng ak tudd yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol tudd yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol am na leetar bu mbindoon mag ñi ñenn ci waa fayda koosi ci waa Mauritanie ñi nga xam ne fekkee nañ ci fayda ci Kossy Cheikhani ku ñuy wax mu Mouhamed Fall Ahmed bin Muawiya ñooñ kenn déggatu leen sax ci mag ñi fekkoon Kossy lañ yàlla xam na leen pays bi xam na leen bàyyi gannaaw bu leen dénkee wax leen ne njëriñal xam yàlla ak jeexitam mooy aju sa xol ci yàlla ci bàyyi lépp leneen lu may yàlla tabaraka wa ak di tudd yàlla dappet ci sa mbooleem xaal ci sa làmmiñ ak ci sa xol ci sa jëmm ak ci sa roxo ak ci sa mboot xamal ne yàlla mu ngi toogaale ki nga xam ne mu ngi koy tudd bu fekkee tudd yàlla bu ci dara nekkutoon lu may la yàlla wax ne ana jalisu man zakarani maa ngi jékki xaale ki nga xam ne daf may tudd ni nga xamee ne noonu nga amee lataif sa yooyu noonu la yàlla amee péyam yi nga xam ne bu ci nekk benn latifa ci sa lataif yooyu sa làmmiñ sa xol sa sa sa sa roxo sa jëmm sa mbóot bu ci nekk rek war naa jokkoo jokkoo bu mat bu boobaa yow nga am jokkoo yàlla jokkoo bu mat boo xam ne sa tudd nga ko ci sa mbooleem xaal xam nga xarit bi nga xam ne daf la ubbil lépp kooku la ngay am ci moom bokkut ko xam ne benn bunt rek la la ubbil boo bëggee yàlla ubbil la bunti PM yëpp yow tim da ngay tudd yàlla ci sa mbooleem melokaanu yooyu bàyyi ci risaalaam mi nga xam ne xam naa mas nañ ko fee jàng bu yàggee it ba ko mbootam laajee yaa ibrahimu a anta waliyullahi yow ibrahima ndax yow wàllu yu yàlla nga qultu naam mu ne waaw wa dalili ala dalika anni waalaytuhu bi zikri sirran wa ruuxan wa qalban wa qaalaban wa waalaani bi taysiri umuuri mutaalliqati bi zahirin wa batina ndax yow wàllu yàlla nga la ko mbootam laaj mbootam rek la doon wax waxutoon ak keneen waaw moo tax ba mu ba ca mujj ga am na ci loo xam ne def koo nëbbu mu ne ngir bañ jàmbur taxaw ci waaw wàllu yàlla nga mu ne ko waaw li ci sama tegtal nag waxu ne wàllu yàlla parce que damay naaw ci jaww ji wàllu yàlla parce que damay dox ci ndox mi waxul wàllu yàlla lu may damay soppi ay ay damay def ay xar di def ay kii waaye wàllu yàlla laali li ci sama tegtal mooy man dama méngoo yàlla ci di ko tudd yàlla wax na ne fazkuruni azkurkum ashkuru li wala takfurun tudd leen ma ma tudd leen yàlla bu lay tudd kay kon moom mu ngi la méngoo kon yow boo tudd yàlla yi yaa ngi méngoo yàlla moo tax mu ne wàllu yàlla ndax man damaa méngoo yàlla ci di ko tudd ci sama sirru ci sama roxo ci sama xol ak ci sama jëmm moom mu méngoo ma ci xewenal samay mbir yëpp ci zaahir ak ci baate loolu it kayfiya la boo xam ne bokk te kayfiya yi gars yi bind di wax ne bu ko defee man faala wajëde kada waaye kayfiya la de <laughs> méngoo yàlla mu méngoo la fexe ba méngoo ko ci sa xaal yëpp mu méngoo moom it sa xaal lépp kon sa xaal dara du ci dara dara du ci yàqu Baay waxoon na ne man kaana lillaahi nga xam ne man kaana lillaahi kaana kaana allaahu lahu lañ wax mu ne mu ne loolu garanti la ci ñàkk a yàqu ak ñàkk a yàqule ndax boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la yàlla du yàqu bu la yàlla nekkalee doo yàqu boo nekkee fi yàlla it yàlla nekk fi yow yàlla lu mu nekk it du yàqu mu ne xaayab laay jàngal alquran dëgg-dëgg jàng tuddal yàlla ci sa làmmiñ ak ci sa xol bërilal julli ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallama bi màgg bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ne mooy fatix li ma ugliq bërilal ñaan ñeel sa bopp bërilal ñaan ñeexal say ñaari wàjjur xam nga jàngale bi pour ñëpp man koo jëriñoo la xam nga bu neewoo ko woon bëri leen ñaan ñeel sa bopp bëri leen loo may ñaanal keneen koy jàng da foog ne moom bàyyi boppam la doon ñaanal rek ñaanlul waaye jàngalewul ñaanal waajur waaye fii mu ngi jàngale ñaanal waajur ba yow mi koy dégg nga xam ne sa waajur a ngi ci barab boobu bëri leen ñaan ñeexal jullit ñi tim ne kuy tukki ñaanam lu yàlla nangu la yonent bi moo ko wax moo tax bam mu xéemoo ci ki nga xam ne mu ngi tukki fënd ba pare di wax yaa rabbi yaa rabbi ba pare ne waaye li muy lekk daganut li muy naan daganut annaa yustajaabu lahu fu fuñ koy nangulee borom xam-xam yi dañuy wax ne gannaaw bu yonent bi indee sabab yi nga xam ne yëpp ci sabab bi nangu ñaan la tukki ci sabab bi nangu ñaan la yaa rabbi yaa rabbi ci sabab bi nangu ñaan la ndax ci tur yàlla yi la qul ibdullah aw idrahmana iyamma tad'u fa lahu l asmaa al xusna waaye am na sax ñoo xam ne dañoo wax ne yaa rabbi yaa rabbi mooy ismul azam moo tax gis nga ko ci ñaani bàyyi yonent bi sallallahu alayhi tudd waa ji mu ngi fënd mu ngi tukki mu ngi wax yaa rabbi rabbi ba pare di lekk lu daganut di naan lu daganut fuñ koy nangulee waxut ne duñ ko nangul de an naa yustajaabu la wax waxut ne laa yustajaabu la waaye mu ngi soril sax kooku ñaanam nangu ngir ne gannaaw bu amee sabab yi yëpp dafa am beneen sabab bu manqué la mooy lekk lu tey moo tax baax na jaam bi di dimbali ko lekk lu tey ne ko kuy tukki ñaanam luñ nangu la te danañ nangu ñaanit waxtu woo xamee ne jaam bi mu ngi jàkkaarloog néegam yàlla bi ci yoonam mu njëkk maanaam gis ga rek danañ nangu ñaan ca xajarul aswad danañ nangu ñaan ca multazam multazam mooy diggante buntu kaaba gi ak xajar bi am na diggante boo am na diggante boo xam ne lu tax ñu tuddee ko multazam nit ñi dañ koy tatafu maanaam saxaaba yi xadis yi ca gën a wér jugee ci ci saxaaba yi la jugee waaye ñi wax ne yonent bi sallallahu alayhi loolu la doon def mooy da ngay ñëw ba foofu nga taf ci sa dënn bi say loxo yi ak sa lex bi dool ko def teg ko ci teg ko ci taax mi di ñaan loolu tax ñu tuddee ko multazam maanaam yow da dafa dafa mel ni da ñëw rek tatafu ko sax fa foofu barabu nangu ñaan la waaye noonu lañ fay ñaanee boo fa mënee àgg ne ni nag boo demee boo amul ñu ne dimbale ñaare doo ko mën jot danañ nangu ñaan foofale danañ nangu ñaan ci néeg bi ci boppam néeg bi kaaba gi yëpp la biir kaaba gi sax ci boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg na ci kaaba gi julli foofu ñaari rakk farata lañ fa dul julli ndax kuy julli farata kaaba gi nga war a jublu te boo nekkee ci biir jublootoo kaaba gi danañ nangu ñaan fa ruknul yamaani mooy pegg bi ngay jot bala nga àgg ci xajarul aswad nga xam ne digganteem ak xajarul aswad foofu rek moo am ñaan goo xam ne li ñaan yu bëri bëri ñi wane ngay ñaan lii boy wër kaaba booy nangam booy nangam amul benn ñaan bu wér ci wër kaaba gi lu may ci diggante boobu diggante ruknul yamaani ak xajarul aswad foofu moom rod na ne yonent bi sallallahu alayhi li mu fa doon ñaan rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar lu may loolu amul benn ñaan boo xam ne ci ñaani kaaba ga la boo xam ne nii lii wér na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu doon ñaan mu ci borom xam-xam yi nag ñaan nañ seen ñaan yi tànqee ci ñaan yonent bi sallallahu alayhi loo ci man baax na waaye boobu mooy bi nga xam ne moom boo fa accès loolu nga war a tànn di ko ñaan ndax loolu mooy sax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko ñaan foofu ak cheron misa bi rahma misa bi rahma gis nga mooy weñ googu nga xam ne mooy yolluwaayu ndox mi rek la bu bu tawee foofu la ndox mi yol wàcc di di di taw boo demee baronu ko boo demee baronu fa barabu nangu ñaan la wax nañ ne bàyyi nee na ku fa ñaan soxla téeméeri yoon mu mën a do yàlla dana ko nangu loolu xel nangu na ko ndax foo xam ne barabu nangu ñaan la li ngay ñaan itteel la ba nga àgg ci téeméer passé nga juróom-ñaar fukk nga xam ne moo gën a bëri ci lim yi daanaka nga àgg ji téeméer te xam nañ ne dogu ak loru bokk na ci sababi nangu ñaan yi nit ki bu amul benn sabab ci sabab yi nangu ñaan yi lu may looru rek aman yujibul mutarra ida daahu loolu sabab la ci nangu ñaan ndax xéeféer sax àgg na ci ñaan yàlla may ko xam nga ne Ikrimatu bin Abi Jahlin si ndox la nekk ndox mi bugg leen a wann seen bato bugg a suux mu ñaan yàlla na yàlla bu nga musalee ci lii ma dugg ci lislaam yàlla musal ko kooku ittiraar rek mooy sababu nangu ñaanam googu ca maqaama Ibrahim foofa barab bi nangu ñaan la fa zam-zam fi zam-zam ne barab nangu ñaan la léegi nag zam-zam doo xam fu ne maasee nañ ko mu ngi ci biir xaram bi xamatoo fu mu ne ndox ma rek ngay gis xanaa boo gisee ndox mi nga naan ki nga ñaan sa soxla ci ci ñaan gi ndax li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne maa u zam-zam li ma shuriba lahu ndoxu zam-zam loo ko naanee rek la ne moom mu koy naan ngir marag yowmal qiyaamati fa safaa doji safaa fa marwa doj marwa booy dox seen diggante foofu loolu yëpp barabu nangu ñaan boo demee ci masjidul xayf ca minan xam ne fa la yonent bi ne woon ci minan moom la bàyyi di wax am naytu laa abri siwal xayfi innahu mahattu habibi fihi dahran walam yazal foofu barabu nangu ñaan la léegi hôtel nelaw la ko gars yi def boo demee guddi boo demee ba foofu boo buggee julli sax da ñaan nit ko may ma ma julli waaye nga fekk ne hôtel la boo xam ne kenn du fay ku ñëw rek tëdd nelaw rek waaye terewut boo fa àggee man ngaa ñaan soxla ndax barabu nangu ñaan la te ci barab yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, taxaw la neewoon wa bi minan ak minan lépp barabu nangu ñaan la arafaat lépp barabu nangu ñaan la donte yonent bi ci jëbal rahma la taxaw waaye dafa wax ne arafa yëpp mawqif la masharil haram ba tey dégg nga ca musdalifa barabu nangu ñaan la waaye musdalifa ci boppam moom lépp barabu nangu ñaan la ca aqaba dégg nga barabu nangu ñaan la ak gannaaw ñaari jamra yi barabu nangu ñaan la li tax mu wax ne gannaaw ñaari jamra yi sunna ci sànni jamra bu njëkk bi ak bu ñaareel bi boo sànnee ba pare dangay taxaw jublu xibla ñaan yàlla waaye jamra bu mujj bi boo sànnee doo ñaan dara da ngay sànni rek continuer dem see bàyyi na ku bërilal ñaan ndax yàlla nag joxut yonentam yi ak wàlliyoom yi lu may ñaan ko ñaan rek la jox te ne ko yàlla du la ubbil buntam ñaan lu may ubbil la buntam nangu kon xam ne nañ xam ne nangoo ñaan ci lijaaba la bokk ñaanal ma am lijaaba nangoo ñaan ci lijaaba la bokk imaam Junayd dañ ko wax ne ko foo foo li nga am mu ne bi juluusi taxta haasi durjati salaasina sana waaw toog rek ci ron escalier yi fanweeri at maanaam fanweeri at mu ngi dunguru rek yow ku tabewut sax boo ko dunguru fanweeri at mu may dunguru nag ki nga xam ne moo wax ne wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma nangu leen moo tax yi la ñaare doo ko mën a ñaan de ngi commencé rek boo commencé rek nelaw mooy yi lay jafe doo ko mën a ñaan waaye bu la yàlla bàyyee toujours nga koy wax rek da nga ko bëgg da ko nara am ndax mu ne yàlla mooy karimul wahab mooy ki tedd ki mayeexaakoon mooy ki doylu mooy ki tedd lii yëpp nag mu ne ko lii yëpp nag ma la digal nag na nga xam ne mooy gannaaw boo xereñee def fara yi nag gannaaw boo defee farata yi defen ba gën a baax waaw parce que ñu julli nga sàgganee julli yi toog ba guddi ñaan dëgg dëgg baax na waaye tim sa sa xaalang lay tontu di la wax ne lisaan xaali pay bi naan la waw yow nga yow nga sàgganee yi ma la sant ba pare bu di ma sant yow jaam nag moom du ñàkk ay bunt yu muy neexalee boromam yaa am man maa rek waaw ak noo mën a mel rek yow bu la neexee nga ñaan sa borom waaye bu fekkee danga ngaa bëgg a ànd ak teggini pays yi bala ngaa sonn ci naafile yi sonnal ci farata yi waaw bala ngaa wasifa na fekk ne yow julli bala ngaa wir bala ngaa waxi wirdo na fekk ne wér na ne yow mën ngaa xemanal farata yi waxuñ ne ku wéragut loolu waroo koo jël ndax tudd yàlla mën na laa omat ba jëmee la ci topp yàlla niko yàlla bëggee waaye bàyyi ne ko yii la dénk yépp rek gannaaw na nekk na nekk soxlaay ñaareel waaye bu njëkk bi mooy xéwénal farata ndax yii may wax yépp ci farata la topp ne ko nag digal naa la yow sama doom ci li ci li ma xam ci tariqa bi te awma lu ëpp loolu gërëm naa la ngërmaande gu mat sëkk nuyul ma alxabib rasulullahi sallallahu waxtu woo duggee ci moom rek nuyul ma ko waxtu woo duggee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuyul ma ko bul fàtte sa yaay ju baax ji bul fàtte sa mbokk yi góor ak yu jigéen yi waaye bul fàtte sa mbokk yi ci yàlla mooy mbokki taalibe yi ñoom ñi nga xam ne seeni xàq bëri na ci sama kaw ci seen rafet ak njort ak ci seeni xidma ak seen joxe seen alal xam nga kii óor naa jox xaalis ngir yàlla koo xam ne da ko jox ngir yàlla mu jàpp ne yow da nga am xàq ci moom ndax da nga koo jox te ku ko joxoon ba topp ko ci gannaaw seet la ko jox na ko la koy def nga xam ne jox nga koo xam ne am joxal ma yàlla rek la moo tax sëriñ Omar Gueye daf ma nettali mu ne dafa ànd ak Seydi Ali mu ànd benn gan mu indi xaalisam bu bëri nag bu bees tàq jox ko Baye sëriñ Omar Gueye mu ne Baye di ko séddale comme kuy séddale jikku jukki kaamil pour ñu jàng xam nga mu gaaw jeex rek ngay bëgg mu ne gan gi daal xolam ñagas ci loolu mu yootal Seydi Ali ne ko ah maa foog ne sëriñ bi xamul ni xaalis bu bëree ndax bees gi kayit yi moo bees waaye xaalis bi dafa bëri de sey daal di ne ko yow foog nga ne yaa gën a baax sëriñ bi lii da ko ko jox ci yàlla moom mënu ko dundale ci yàlla loolu rek doo na waaye ñaanalal taalibe yi nga xam ne seen xaq bari na ci suma kaw ndax seen rafet njott rek ak seen liggéey bu bari ak seen alal yi ñuy joxe ñaanal leen yàlla ñoom ñépp waaye bul fàtte sa maam sa turandoor maanaam xaaja abdullahi ndax lépp lu nekkee rek lu rafet la ci rafetam yi lu rafet la ci rafetam yi xam nga bàyyi kenn la ci Maam Alaaji Abdoulaye kenn la Maam Alaaji am na ñeneen bàyyi nag doy na sëkk waaw waaye nee na ko lépp luñ nekke lu rafet la ci rafetam yi ndax koo xam ne moo la jur moo la fàggu moo la jàngal moo la yar moo la wëttu ba jamono dara mënu laa jël kooku du bàyyi rek ñu ñuy ñaanal nan la wax fa cheytaani bihi lam yenal azzi jaza allah abdallahi xayran fa innahu hadaani fa cheytaani bi lam yenal azzi bàyyi na yal na yàlla fay abdullahi moomu xiw moo ma jubal ba nga xam ne man sama seytaane mënumaa gësam xam nga yontu sallallahu alayhi wa fa wax ne ñëpp am nañ malaaka bu leen di digal lu baax ak seytaane bu leen di tayalloo ci lu baax bam mu des moom moom seytaaneem fa tuub bàyyi waxut ne seytaane fi nekkut fi de daf ne mu fi waaye sama baay moo ma teg ci yoon boo xam ne seytaane bi mënul dara mënul dara kon defe naa ne ñëpp war di ñaanal alxaaji Abdoulaye kon ndax ku am baay rek moola ko fàggul ku am baay moom moo la fàggul baay bàyyi na ko bul fàtte mbooleem sëriñ si bàyyi baax kii du sëriñ buy fay sëriñ buy ñaanlu pour fay sikse yi benn sëriñ kii du ko kii du kooku ñaanalal nag mbooleem sëriñ yi wala ten sa jameel acheikh waaye ñaanalal mbooleem jullit ñi tim ñaanalal képp koo xam ne tim am na xàq ci ñun maanaam defal nañu lu baax rek ñaanal yàlla delloo la nga mucc ci jàmm ak koomal ak aj guñ nangu ak dox guñ gërëm ak bàkkaar yuñ baare islam ibrahim na xay abdullahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu